di Cheikh abdul fatah mi nga xam ne moo jëwriñu magaluk Kazu Rajab gi mu jëlee ndigal ci kilifa kër gi jaar ci jëwriñam muy Serigne Bachirou di jëwriñu Serigne Aboul Baraka ndigal li bàyyi ko Cheikh Baraka mom Cheikh mohammedul Fadil mi nga xam ne mooy kilifa kër gi di borom magal gi moom itam mu jëlee ndigal ci ki nga xam ne Cheikhul Khadim di Cheikh Mouhamadul Muntaqa ngir ñu am ndigalul wajal bis bu tedd bi nga xam ne moom la ñu séentu muy laylatul isra'i wal mi'raj di doon bis boo xam ne sëriñ bi daa wax ne saa bu ñu ñëwee nañ fàttali bis bi ni mu toll ci lislaam di bis boo xam ne ci la borom bi subhaanahu wa taala jële woon soppeem ba di sallallahu alayhi wa sallam jële ko masjidul haram yóbbu ko masjidul aqsa doon loo xam ne alquranul karim moo ko nettali taarixal ko wax la nga xam ne moo ca xewoon wax fam xewe woon wax nam xewe woon nga xam ne kon waxtu wuñ jànge alquran rek war nañoo fàttaliku bis bu tedd boobu yi sunu borom jële ci sallallahu alayhi wa sallam min al masjid al xaraami ila al masjid al aqsa alladi baarakna xawla li nuriyahu min ayatina innahu huwa samiu al basir mu doon taraanga joo xam ne sunu borom mësu koo defal kenn ci ñu tedd ñi ci eh, yonent yi ak anbiya yi li ñu baax baax li ñu tedd tedd teraanga jooju sallallahu alayhi wa moo ko mas a am mooy rañaane ko guddi yóbbu ko masjidul aqsa yéege ko nag ca fa ko soob ci péyam yu kawe yu mag ya foo xam ne kenn mësu fa àgg mu jege itam borom bi subhaanahu wa taala jege goo xam ne kenn mësu koo jege noonu te loolu alquran moo nu ko wax fa kaana qaaba ni aw adna nga xam ne buñ doon wax xala ñu xamul xala mooy li ñu tuddee arc diggante ñaari bopp yi ni mu jege noonu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jege woon borom bi subhanahu wa taala te loolu kenn mosu ko am loolu ci guddi gii la amoon bi mu demee itam mu teral ko fa jox ko sërica muy sërica boo xam ne mooy lislaam ndax mooy ponk bi gën a am doole bi gën a rëy ci lislaam mooy julli borom bi subhanahu wa taala farataaloon ko muy juróom fukki julli mu wax na ne ko na nga ko yóbbu ca sa xeet wa ñu dima ko defal waaye bi muy wàññiku ndax ba mu dem romboon na mboolem ñu baax ñi nga xam ne ñooy boroom daraja yu kawe yi ku ci nekk mu nuyu la fu mu dem ñu teral ko màggal ko fa jox ko fa ay ay daraja ja ko yàlla jox moom itam bi mu dellu si ci mbaaxam ku mu rombaat waxtaan ak yow ci yoonam ak sëricaam nga ne ko loolu diis na kon sàkkul ci sa borom mu woyefal ko mu def ko mu sàkku ci boromam mu woyefal ko ba mu des juróomi julli juróom fukk la woon waaye mu wàññi ko ba mu juróom te bu delluwaatoon sax xëy na mu demee neneen waaye nag mu ne kon ku ko def da nga am yoolu juróom fukk yooyee ku neexit mën ngaa coobarewu nag ngir sant sa borom ak yokk sa jaamu nga def ba muy juróom fukk waaye ay nawaafil lay tudd kon muy bis bu màgg boo xam ne bisub lislaam la sunu eh, cheikhul xadim radiallahu anhu moom itam leeral ñu xew-xew ya ca am ndax lépp da ko jëlee rek ci alquran ak sunna wax ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam jëmmam la borom bi rañaale muy kéemaan gu gën a màggati kon gu gën a kawe yóbbu ko ba fa soob jox ko sëri caam bu tedd bu màgg boo bii yàlla dogal na kon ñu mu baxé ñu ci itam baxé ci cheikhul khadim radiyallahu anhu cheikh mohammedul Fadil feñ ci guddigo gi muy guddigu mag go xamne moy guddig mooy gi gën am solo ci taarixu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam sallam moom itam mu ñëw nak bokk ci njabatuk cheikhul khadim waye sunu borom cëral ko itam cër yu reey reey reey ci cër yo xamne dafa man nes nako méngale ak guddigo gi mu doonon guddig jaamu yàlla ndax ci la borom bi subhanahu wa taala le jaamu yàlla doon guddig xarbax ndax xar baax gu tol noonu mësta am ci lislaam doon guddi goo xam ne itam guddi guddig yiw la guddig ñaan la guddig taraanga la guddig nangu ñaan la kon loolee la njaboot gi di barkeelu gannaaw bu ñu amee ndigal di ko fàttaliku bokk ko ak mboolem jullit yi mboolem bindeef yi ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëpp ko bokk waxoon naa ko alquran la du sàppi waxtu wane mënees na ko wax borom bi subhanahu wa taala daf ko yónni ci mboolem bindeef yi yónni ko mu doon yërmande ci mboolem bindeef yi وما أرسلناك إلا كافة للناس وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين كون يرنت بي صلى الله عليه وسلم يب نيوكو بوك شيخ محمد الفاضل نك دا فا نيو جيل سي جيكو يوي جيل سي ترانغا يوي جيل سي بيس بوبي مو دون بيس بو خامني ايتام من نانيو واخني ولا شيخ الخديم داكو فاي شيخ محمد الفاضل ndax serigne bi mo diglé won magal gu mag gi ñuy def ci fukki fan ak juroom ñet waaye nag woote gi Touba Cheikh Mamadou Fadil moo ko ko defal waaye Cheikh Mamadou Fadil itam bis bi moo ko daan def bu ñëwee mu dem Daaru Salaam gi nga xam ne fa la feeñe woon moo magam ju baax ji Cheikh Mahamadul Moustapha dem fa fanaan fa fekk fa mbokkam ma di xaritam ba Cheikh Mahamadul Mamoun bu ko defee jokk fa ak bokk waxtaan fa ak moom dellu siwaat jaar kër sëñ Afi Ahmadou Ñang mi nga xam ne moom itam magam la bu nu ci jógee nag mu dellu këram lolou nak gannaaw bu fi bàyyi ko moom itam Cheikh Mamadou mustafa fallilu moko wotel guddigi nga xamne moy mooy Kazu di al isra wal mi'raj ànd koog rakam je Cheikh Mahamadul Amin mi nga xamne momi tam mbiram dafa dugg ci guddigi motax bu ñi waajal Kazu Rajab ñi ngi waajalaale màggalug El Hadji Mahamadul Amin bara kon lolou moy tarikh bi nga xamne motax moo tax seuti Serigne fallu yitam am ci taxaway bo xamne Serigne khadim juñu nako legi sa bu ñewé dañuy dañuy def ay waxtaan ndax day bisu diine dafa fess del ak l'islam ñu fassiyene nak wër wi sa bu teroo rek ñu diko dundal ci l'islam buñ sañon bis bu set danañ waxtane diine waxtane fatali konte fatali wat bis bi fatali magay bis bi fatali xew xew-xew bi fatali ko cheikh mohammed al Fadil mi nga xamne mo ci feñon ñaanal ko ci ñaanal ci sangam ba cheikhul xadim radiallahu anhu ñaanal ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam ñaanal ci mboolem bindeef yépp ñuy def at mu jot nak ñu tan tomb bo xamne mom moom waxtane bu ñëk ba al muridu sadiq lañ tànnoon muy ak taalibe wala ab murid saadix waaye loolu mooy al imaan mënees na ko dëppalee ak loolu bu ko defee ñu waxtaane ko seet nuñ ko gën a yaatale bañ mën caa jariñu at ma ca topp ñu waxtaane xam-xam ndax bis bi bisub xam-xam la ndax li ci borom bi subhaanahu wa taala xamal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mësu koo xamal kenn fa awxaa ilaa abdihi maa awxaa muy bisub xam-xam boo xam ne moo tax ñoom itam ñuy tànn tomb boobu di ci waxtaane njariñul xam-xam di ci soññee ndax Cheikh Amadou Fadil itam borom xam-xam la woon bu mag a mag a mag ndax ni ñu xamee borom xam-xam yëpp mën nañ koo xam ci moom mooy ku jàngoon la woon ku bind lu bari bàyyi fi la woon lu ñu bari xamul bindkat la woon bu mag a mag a mag a mag xam da koo jege woon nga xam ne fu mu ko soobee rek mën na koo jëfandikoo am na borom euh, boykat bu ma sa wax ne ilmi maa yi xaytu maa yammamtu yam faaw nii nee na sama xam-xam doonul lu may lu may jëli wala lu may seet fu ma soxlaa rek mu daal di teeg sama kanam Cheikh Mamadou Fadil noonu la meloon ku mas bind woy arab jox ko li gën a jafe lu woy ya neex-neex dafay daal di wëlbati kayit wa baxru ba nga binde wala xaafiya ba wala na nga binde woon ci la lay tontoo du xalaat du du du ko kii loolu ñu bari xamuñu ko ci woon moo tax sëdi itam daaw ñu doon waxtaane xam-xam ak ni xam-xam toll ci lislaam ak ni mu toll ci bindeef yi ni mu toll ci doomu aadama yi ndax aaya bi njëkk a wàcc ci alquranul karim mooy iqra cheikh mahamadul muntaxa mii fi toogal cheikhul xadim itam bi mu ñëwee fi mu bëgg a tàmbali ab liggéeyam mooy loolu moom itam defar nit ñi te mooy yar leen jàngal leen moo tax daaw ñu waxtaane woon xam-xam ren itam ñu tanat benen tam ñoom sët yi bëgg ko waxtane te moy liggéey ndax kat sëriñ bi dafa wax ne Cheikhul Khadim xam-xam ak liggéey ñoy li nga xamné ci la nit ki mëna défaré adinaam defar ci àlaxiraam al ilmu wal amalu jawharani li xayri yat daareeni yajlubaani wax ne itam loolu ci la nit ki mëna a jariñoo moom moo tax ñu tan liggéey sëriñ touba nak radiyallahu anhu sa bu waxé liggéey mom liggéeyal yàlla lay wax sa ko xam xam-xam ba nopi jëfe ko waye lolou batay moy mooy biñu wax rek ndax dafa wax mom nak budé wax liggéey biñu waxtani ñun ni mom moy sakku lu lew lay wax wala fagu lu lew wala sabab lu lew wala nak ñaan yàlla nga xamni ne yu yu xóot lay jëfëndiko sax ci bu wax ci liggéey motax den sédi tan ñom itam liggéey ngir bëkk waxtani soñ ci nit ñi xam lolou moy mëna defar adina te adina fi le nit ki mëna wajalé al-akhiram lolou yëpp nak ñu sukkandiku ci Cheikh Mamadou Fadi lim ko doon jëmmale ndax xam-xam bi waxnako naa bind na bàyyi fi tabax na ay jàngukaay doonoon na itam koo xam ne dafa daan dimbale ñi nga xam ne ñooy jàng di leen taxaw ba ci daarul maarif islamiya bii nekk ci jumaa ji nga xam ne bokk na ci daar yi njëkk ci Touba Cheikh Mouhamadul Fadil moo ko fa taxawaloon gannaaw bu jumaa ji noppee borom mi xam-xam yu bari génn ci ba nëgëni ñu ngi wey di ci génne doon itamoon liggéeykat boo xam ne lim sanc ci ay tool kenn xamul lu mu toll te lépp dafa daan liggéey waaye lu liggéey nag da dellowaat ci yàlla ko bindee fi mas jox itam daf koy dellowaat ci yàlla defe naa loolu misaalum jumaay Touba ju mag ji doy na ci ak mboolem dëkk yi nga xam ne sant sanc na ko loolu kon la sët yi bëgg a waxtaanee ci guddi gi nga xam ne mooy jiitu màggal gi. mu doon mm, waxtu woo xam ne it sëriñ bi mën nañoo delloosiwaat euh, digle wala xutba boo xam ne defoon na ko bi muy wootee màggal gu mag gi ñii ñëw yóbbaloo ko mooy neen ni tax ñu buñ ñëwee nañ ko dundal ci tudd yàlla. nañ ko dundal ci tudd yàlla mooy dikrullahi ak istixfaar mooy jéggalu borom bi subxanahu di julli ci yonentam bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam jàng alquranul karim jàng xasaay di cheikhuna al khadim yi nga xamne génnut loli mom yoy mo wax rek moy tuddu yàlla julli ci yonent bi jéggalu borom bi subhanahu wa taala kagn ko magal ko yoy rek moy xasaay di mu wax ne nañ ko ci nonu kon ak nak siyaare itam ñu bax ñi nga xamne ño nek ci dëkk bi kon lolu Cheikh Mamadou murtada ci ndigalu kilife yi mi ngi koy fatali ñi magal ci mu xamne kon non lañuy magale magalu ko Kazu Rajab diko magale wotay Cheikhul Khadim radiyallahu anhu mu doon nag xew-xew boo xam ne dafa ñëw ci fekk ay jamono yu xew-xew loolu gouverneur ñu ngi la koy fàttali mooy eh, ay gone yoo xam ne dañoo dañoo réer mënuñoo wax ci luñ nekk mu doon lu tiis nag ndax dafa xew ci kër gi am ñaar la sax am na kuñ may waxaat barki dem moo xam ne tam defe naa sax ab leer la boo xam ne bu tuuti la doomi kuñ wax sëñ Ibrahima Kare ak ki nga xam ne sëtub sëriñ bi la ñu am ci jaaxle loolu xam nañ ne yéen a ngi si ndax loolu xam nañ ne seen liggéey la kenn du leen ko fàttali waaw moom mooy sëtub Cheikh moom sëñ Murtada moom Cheikh Amadou loolu doon loo xam ne sëñ bi nee na nañ ko fàttali ñu bokk ñaan ndax ab jaam ñaan la am waaye nag nu bokk itam sabablu ndax borom bi subhaanahu wa taala dafa wax ne kat boo bëggee dara da ngay sabablu ba noppi ñaan borom bi subhaanahu wa taala ma fekk la ca kon loolu la sëriñ bi ne daal nañ ko fàttali ci màggal gi ñaan ñëpp ñëw ni ko sëriñ bi daan waxee te xam ne kuy ñëw na nga indaale say wagaan loolu ay bagaan maa ngi koy abbu Cheikh Amadou Faye nga xam ne moom wala wala fan la kuy ñëw na nga indi bagaan yu rëy rëy rëy rëy te xam ne bisum ñaan la boo xam ne sunu borom du ci delloo yaakaari jaam du ci tas yaakaari jaam ndax yii ci daje fi ñu jëm muy Touba li tax ñu jóg muy dundali ganek àddina ak Cheikh Mouhamadul Fadil santale ci borom bi subhaanahu wa taala waaye nag fàttaliku xew-xew bu màgg bu kawe boobu nga xam ne sallallahu alayhi wa sallam mësta am xew bu ko gën a kawe kon ñu ngi ñaan bu ñu ñëw ci jàmm dellu si jàmm te képp ku ñëw loo fa yaakaar wala loo fa indaale sunu borom defal la ko na nga ko bëggee ci barkeb Cheikh Mamadou Fadil ci barkeb Cheikhul Khadim radiyallahu anhu